jëf jum mën a doon bàyyikoo ci doomu aadama rek aw njomme mën na caa nekk ku mucc yàlla rek moo la musal su ma la bëggee jox niral mooy misaal da xool jamono jii rek ñun ñëpp ñoo ngi jëfandikoo jumtukaay xarala yi di internet nga xam ne ci la ñuy weccee sunuy xalaat léeg-léeg ñu waxtaan ci ci lu nëbbu léeg-léeg ñuy waxtaan waxtaan woo xam ne day feeñ nekk ca kaw ci public. ñu ci partager sunu ay mbir ak sunu ay yëg-yëg di ci waxtaana léeg-léeg ay masala yoo xam ne mën naa tàng ñenn ñi di ci jëw di ci dugg ci deri ña ca des di ca wax lu jaaduwut te kat kañee waxal du ko yëg ñenn ñi di estati ay mbir yoo xam ne awray jàmbur la nga xam ne bët waru koo gis nopp waru koo dégg mbir yi yëpp ak yu ko nuru jamonoy internet ku ne xam ne ne tasaaroo na baax na léegi xalaat leen bu fekkoon ne tey jii internet dafa dof te loolu lu jàppandi la ñu ne tey jii whatsapp dafa dof nga xam ne léegi dafa am paan bu ca nekk mboolem say wokaal li nga mas a wax wala say esthétique yépp yëpp mu àgg ci noppi nit ñi nit ñëpp di ko dégg mboolem loo mas a wax ci sa whatsapp wala la nga denc ci ay photo nga xam ne danga koy nëbb wala ya ngay feeñal yëpp daa di feeñ daa di génn wax yi nga xam ne daa am ñoo ko jagleeloon ak wax yi nga xam ne da koo boole woon ñëpp lépp génn ci mbedd mi nga xam ne Moodu sax lam doon wax di ko wax seex seex dégg na ko la seex doon wax Moodu dégg na ko moo xam la ca kaw wala la ca suuf kenn ku nekk daal say mbóot ñu gaaral ko ñëpp di ko gis la nga waxoon ñu teg ko ñëpp di ko dégg waaw imagine imagine leen loolu bu amoon lan mooy xew xam ngeen ne dana bari lool ay xuloo dana bari lool ay xiiroog ŋaayoo dana bëri ay règlement de compte tribunal dana àtte ba sonn bari na koo xam ne amoon ngeen buumu kóllëre su boobaa buum googee dana dagg ndax mbóot ma day feeñ lii moo tax yow mbokk mi daal maa ngi lay digal yow mi nga xam ne mënoo ñàkk jëfandikoo jumtukaayu xarala yi nanga nga wattandiku de na nga góorlu sa kem gàttan ba koy waxtaanal wala ngay def ak moom débat na nga ci sàmmonteeg teggin moo xam ca kaw nga koy wax wala ca suuf adduna bi daanaka lu ne mën na caa nekk moo tax maa ngi leen di ñaanal jàmm ak mucc ak aafiya te ngeen dollee xam ne kàddu gu génn wala jëf jum mën a doon njuumte wala jëya mën na caa nekk ku mucc daal yàlla la musal